ummee ma wax de man du samay wax ummi moo ma wax. li ma ci naqare xam nga la ma am la dugal ci ay détails rek ndax bu ñeme woon li ni wax fii lañ koy waxee ci dix-sept mille personnes duñ la wooyow ne la taalal sa live bàyyi la ci coow li tey da weex dunq man mi nga xam ne mën naa encaisser ñëpp mën naa gérer ñëpp nan ñëw fii yow yaa fi njëkkoon a génn. waaw ah. tetal leen ne gars yi dañ leen sarax xaalis ñuy dugal seen xaalis. xam ne ummi mel ñu lay woo di la saaga ndey ak naan la maam Ndiaye Savon da ngay da bokk ci mafia bi. suñ amee lu ñuy wax di bat batal bu bëggee ñoom dañuy yërëmtalu ñan ñëw fii teg ko mu leer yow yaa ne ma am na te yónnee nan la audio yi nan teg audio yi fii mu leer. Eh. maam bu la ñuy dugal ci ay détails. tegal joxuñu ma audio de ki wax naan dañ ko porté plainte ki doon war wax naan moom moo porté plainte. moom la yow yow yaa ne ma dafa ñëw pour teg ay audio ndax yor na ay audio. lii nga ma wax waaw déglu ma rek doo ma déglu. waa déglu ma bu ma ah. sorko sorko dama ne la ah. umu woo na ma ba envoyé nga ma ay vidéo appel yi mu doon waxal xale bu góor bi nga xam ni moom ah. moo doon moom la ñu yónni woon pour mu def plainte bi muy lay woo ñoom di leen baalu àq ma vocal la ne la aadamoo ummi de yónnee na ma ko waaye man du ma la yónnee dara moom laa bëgg mu dugg ci direct bi leeral ko sénégalais teg preuve yi mu yor mmh. Mm. ma vocal ko ni ko ummi mu ne ma a ah, ma ne ko tuuma dafa met te yow nee nga dañ laa tuumaal mu ne ma a ah, ma ne ko man nag sama tu sama sama ki ma tuumaal du nekk ci ker man may nekk ci ci naaj parce que sénégalais yëpp dañ laa bëgg waaye jamono ji sénégalais yëpp dañ laa weddi ndax li am bu fekkee bëgg ngaa setal ñëwal ci direct Adamo nga setalee ci direct Adamo parce que Adamo bu taalee directam ñëpp dinañ toog seetaan ko. non yow sax boo taalee ñëpp seetaan la mais dafa am lu ma lay dafa am lu ma lay bañal di la ko dawal. parce que yow yaa fi taaloon live indi boos ak ummi ñuy dof dof lu ci kanamu Sénégalais yi naan danoo danoo bëgg ku leen dimbaleeg danoo soxla ndimbal nga dugal sa xaalis man ma dugal keneen ak ku dugal dugal seen xaalis ñu nekk fa di kokkali Sénégalais yi di jël xaalisu Sénégalais yi di ko noose ba mu demee ba coow li métti fi mu toll nii ñoom dañuy wut ku leen défendre instant <coughs> yi boos ak ummi kenn mënu leen a défendre ci senegal ba am ci dam moo tax ñu woowaat la téléphone wëlbatiku tey ba dalee seen live xam nga lan la doon wax maam Ndiaye Savon nañ ko yónnee xaalisam Adama nañ ko dello xaalisam yónnee naa la vidéo bi. waaw. kenn mënu leen a défendre ci senegal amul ku leen di défendre dañuy saaga sa ndey boole waa leen ci ñoom. Sénégalais yi xam na ne kenn mënatu leen a défendre Adama la benn affaire. ñoom ummi xam nga man xam nga ba problème bi amee ba tey ànduma ak ñoom ummi. ndax dugg naa ah, fii ci laaj man bu ñu jënd bu ñu bu ñu bu billet bi taxawoon ma jënd ko ah. waaye umi na dem wax ci samay wax waaye umi man tey ba ma woowee li ma wax dama kaa dégg te waxi nit la ma wax. mu ne ma ma ngi léegi répété répété lim la waaye nag boo bëggee ma toog da ngay nag waaye munoo wax. ba pare te doo may ma wax. baax na. mu ne ma. kan lañuy ñuy tegal visa tegal la lépp tegal la hôpital beeg lépp ne la demal te doo dem. ma ne ko kenn. Mm-hmm. mu ne ma hôpital bi date bi ma waroon a faju dafa paase moo tax ñu delloo ñu xaalis bi visa bi ñu wutal dëgg la man ak boos dañ ko waroon a wutal waaye visa bi ñu ma wutal dëkk bi ma war a fajoo wàcceewu ma dëkk boobu beneen dëkk laay wàcc te bu ma fa wàccee xam ñoom lan lañ ko wax nee na du samay wax waxu ummi la de ummi nee na dañ ko ne soo wàccee ci dëkk bi soo gisee policier da ngay laxasu policier bi toog di jooy naan ko waa sama dëkk dañ maa génne sama dëkk bëgguñu ma dañ may maltraité ndax sama tànk bi nu mu mel nee na loolu lañ ko wax pour mu def ko moom bu egsee ruur bi muy njëkk a foofu pour pour ñooñu mën ko yërëm wutal ko ay këyit ak papier mu mën a faju ummee ma wax léegi. waaw léegi internet euh, laay wax te li may wax. lii la ma ummi wax te bu fekkee ummi duma waxuma lii ñoom nañu euh. génn ne ma carrément waxuma lii daal di teg envoyé ma ñetti vok vidéo yoo xam ne. ñi bokk ci poroblèm bi am na tey ka ñi waxoon moo demoon di plainte ji kooku ci jëmm boppam woo na boos ba ñoom ñu vidéo ko enregistré appel bi mu naan boos damaa dugg ci mbir mi ba pare réccu ko maa ngi jéggalu maa ngi baalu àq affaire plainte bi dama koo dugg ba pare mais dama cee am di wax yeneeni wax vidéo yaa ci man léegi nag moo tax ma ne la. yow fexeel ñoom boos dugg ci biir live bi tegal la lépp preuve yeeg yëpp ak enregistrement ñu tegal ko nga dégg. très maam yaa may dégg. waaw. li nga wax lépp kenn weddiwul ne ummi moo la ko wax ak boos maanaam liñ fi nettali. moo yéenewul maanaa te képp kuy sénégalais di seetaan xam nga ne wax jii muy wax wax ju yéenewul maanaa la ay dan na ma ku feebar sa tànk damm cëkk. dan ne ma boo wàccee da ngay yuuxu laxaasu laxaasu euh, police yi ne leen dan may dóor dan may xoqatal Sénégal ah dan may wax lu bon Sénégal yi bëgguñu ma laxasu seen biir pour ñu téye la fa yéenewul maanaa du dëgg Mama Guissé du def loolu Mama Guissé nit ku baax la ku yàgg dimbali ay nit la barke Serigne ba xam naa ne xamoo koy Mama Guissé man mi yeex naa ko sax xam mama gise du jël tànk ummi ak ummi ni mel naan ko boo wàccee ci réew mi dangay ngay laxasu ay police bëgg nanoo fen pour nun ci génne mënuñu ci génn ñu ne yow la ni jéem a tayle pour nga taalale live bi yow doo leen mën a dugal pël yow doo woo ummi nii ci laaj yaa tax ma bàyyi man dama naroon na ñëw attaque baayam attaque ummi teg ay vocalu baayam wax loolu la moo sama intention de mais yow yaa tax ma doxalee nii lek comme que yow yaa yor seen numéro yaa ngi ñaari téléphone woo leen ne ñu wax nii nii ci téléphone bi bu leen neexee du dugg ñu teg affaire a ah, man da ñoom ci liñ ma wax nee nañ. waaw maam daal boo def dollu ba duggalaat la ci ay détails lu la fi waay yekk ci internet bi yaa ko teg sa bopp senegal ñoo may seetaan dama lay wax lu leer waaw ndax lu yenu maanaa sénégalais yi may seetaan xam nan rox yaa ngi may seetaan ak ñeneen ak ñeneen ndax lu lii muy muy di expliqué nii yenu na maana ummi li muy expliqué di ko expliqué maam est-ce que yenu na maana ay dan na ma eh, waaw Adamo de Adamo na xam nga lii moo tax ñoom bëgguñoo dugg sa direct ñoo ma doon woo léegi pare nañ pour dugg sa direct dañ leen di ñu tagal la ay preuve tamit wala man ma génn si parce man sama yoon nekku si am naa lu ma dal am naa lu ma doy barigo yi ma teg yëpp war koo naan ci guddi gi moo ma doy man baax na ñu ok man kay yow laa leen di bàyyil du ma wax sax. waaw da nga leen di déglu ba pare ñu dóoral la ay preuve ci ci biir table bi wa nga wax la loo xam ne du dañ. parce que man sama yoon nekk su ma neexoon bañ ma cee fekk mais dañ maa woo téléphone te biñ ma woowee tamit nit bu buñ la woowee di nga déglu te waxu nit lañ ma wax waxu nit yi ma dégg nag am naa droit yow partager ko ak jaw mais ñee buñ la wax nga nga jël seen version jël da ngay déglu deux versions yëpp. baax na léegi nee leen ñu envoyé ay fleur ci kaw ma jël parce que damaa tëj demande yi bu dee ñu may seetaan. ñu ngi lay seetaan boos bu fekkee yaa ngi may déglu envoyé fleur aada moo jël la wala nga jël compte ummi wala sa compte moo gën a mag. aada moo jël la nga expliqué. nan def ay fleur ba tëj sama micro ñëpp sénégalais yëpp di leen déglu. sénégalais yëpp nag leen déglu attentivement. waaw parce que tamit deux version la nañu déglu ñee man ñoom ma ñoom mama boobu ba tey maa ngi seen direct yi rox buy direct damay dugg lu ñuy waxante bu ñuy direct damay dugg te déglu naa leen ñoom ñëpp waaye man tamit nit laa su ma toogee ñu woowoo ñoom ummi woo ma téléphone expliqué ma ma ni damay toog déglu leen parce que nit dong la te man li ma wax dafa leer ummi bu préparé woon pour dem suba suba maay jënd billet bi man maam Ndiaye te amul lenn lu may jox ummi ba pare di ko laajaat lu xas a génn ci man ma may ko doomu aadama soxlaatuma ko. léegi dañ envoyé ay fleur mu ma leen gisee naa leen dugal man directement ndax maa tëj demande yi ndax bu ma ko ubbee rek day bëri ay demande may ma ma woowaat leen. waaw nee ay fleur la ñuy yónnee rek comme nii di ñoom Binta di laay di def ak yooyu fleur yooyu. Thank you. Ah, jatuh ñoom laay woon ni may ma Adamo yey Adamo yàlla baax na bii de tey moom xam naa ni dina mujjee egg junni juróomi junne kaa bi ba pare man nag hmm, hmm. boos demandeel Adama est-ce que doo ubbi sa demande yi ah man déggatuma la de ma ne loolu yónnee fleur yi moo ko gën a yomb Adama yónnee fële yi laax moo gën a yomb ndax boo ko ubbee nit ñi dañuy demandé yaa ma dégg maam xaaral ubbi ko rek baax na nan def demande ubbi naa ko def leen demande mais gisoo allo maam. ana maam. seen connexion nee na moo nangu léegi ba. Njaay ma ne. seen connexion moo nangu léegi ba ba nee ma woo leen appel ñu déglu leen. woo waaw. ay man boosa ko mimi <laughs> jaaxle naa jaaxle naa ba ci yàlla lii ah enregistré ko whatsapp whatsapp bii la bii ko whatsapp nga wool ma leen lu ko waxaat numéro téléphone kan xaar mi ngi sone mi ngi sone yàlla baax na maam Njaay la nañ ma jël man de jaaxle naa maam yaa ngi fi maam maam ñooñu noonu duma woo ñoo ngi leen di dugg xaara aja ñu ngi may woo moo ngi noonu allo waaw yow xam nga danga maa dama laa woo nga ne ma amoo connexion sa connexion bi nanguwul. waaw parce que fi ma nekk nii village nekk. village nga nekk léegi vingt vingt mille personnes vingt trois mille personnes ñoo lay seetaan ci direct Adamo mhm. yow la ñuy déglu. salaamaaleykum Sénégal yi maa ngi nuyu ñëpp. métti na ma trop nag. dafa connexion yi bu tàkkee sax comme mu ngi essayé bu tàkkee dañuy génn. jàkkaarloo mhm. ak Sénégal yëpp. Mhm. tamit. dëgg la booba léegi nit ñi ñu ngi wax fu ku nekk jël version bi la ci gën a neex nga waxe fa mais état dañ leen di expliquer projet bi commencement ba fin suñ paree audio yi nga xamante ne am na ñu si ñu si doon yàq envoyé ñu ko dañu baal dañuy teg yëpp te même buñ ko tegee sax suba incha allahu dañ koy tegaat si suñu page TikTok. Mm-hmm. amaana am na yu yoo xam ne sax envoyé nañ ko maam Ndiaye. omi mm-hmm. dañoo sey entre man ak moom. ma takk ko ci farataas yàlla. xaaral xaaral ma xool ndax Adama Adama yaa ngi dégg. maa ngi dégg lépp. yaa ngi déglu bu baax est-ce que. Adama kii euh, kii boos village la nekk moo tax amul connexion waaye man lu ma sañoon tey day dugg ci direct bi tegal la lépp nga déglu ko. waaw non non ñu ngi koy déglu ñu ngi koy déglu. leer na leer na. waaw waaw leer na waaw ñëpp a ngi dégg. waa léegi boos kon ñu ngi lay déglu waxal. comme dañoo sey ma ak moom. biñ mhm. seyee ñu bari. di def ay message naan pourquoi pas Oumy amul prothèse di tagg ay Aziz di tagg ñëpp yàlla boole ma ak benn jigéen bu ñuy wax ma maa gisee mu message ma na ma sama doom si loo nekk yaa ngi si jàmm ñu ko maa si jàmm mu ne damaa bëgg nga dem jël mesure Oumy pour ma may ko prothèse ma expliqué ko carrément na ko maman Oumy day soxlawul prothèse ndaxte amaan na bu soxla prothèse am na ko bu yàgg mais opération la war a def pour tànk bi parce que yàq bi dafa génn da ko war a opérer pour tànk bi pour mu mën di sol prothèse. ñu ngi lay dégg. comprendre nga. Mm-hmm. bi loolu amee moment bi nañu ah léegi yow fan nga toll si projet yi man maa ngi doon ut ay projet yoo xam te ne umi daa war a faj ji parce que hôpital dalal jàmm laa ko doon traité. pour que ñu fajoo foofu noonu senegal mm-hmm. maman bi na mu ah yow lu tax nga bëgg koo Sénégal faja Sénégal te Europe boo leen ko fi fajee moo ëpp yi opportunité ci yéen ñaar ñëpp. Mm-hmm. ma ne ko Europe ñun de amuñu mbokk bu nekk Europe mu ne waaye dem man dinaa leen jàppale. Mm-hmm. parce que am na benn médecin bu nekk fii ku mën tànk ku mën yax. ñu koy wax médecin Piccolo. ma ne ko ah maman de loolu ñu si dimbali mu jël ne parce que yéen aar bi ngeen di def nii. bu fekkee ne Europe la mu ëpp lu muy fay comme Sénégal. Mm. te xam naa ne boo leen ñëwee fii incha allah seen mbir dina lii parce que Sénégalais respecté wuñu leen parce que ñu ngeen di valoriser handicap. Mm. maanaam nguur gi sax ñoo leen waroon a jël. Mm. ah mun ne ko waa ah, maman de gis nga mu ne ma yow jàmbaar nga conseiller ma. mu ne ko léegi lan la ñuy def mu ne ma da ngeen di dem fi ngeen doon fajoo ngeen lijjanti résumé médical. ak seen i papier de mariage. ma ne ko ah comme que loolu nga bëgg xaaral ma dem ma dem ci hôpital bi fay vingt cinq mille francs mhm. pour lijjanti euh, régime médical bi bi ma lijjantee régime médical bi ma dem tamit maire dafa suñuy papier de mariage mhm. ma da ngay dem apostiller ko mhm. apostiller bi sax dangay fay bu ma demee apostiller quarante mi yàlla def na fayuma ndax dama faa dem fekk fa samay soppe bi ma ñëwee ci cent lañ ma ko defal ci jour bi ba am ñu fa doon werante naan koy lu tax kii ñëw fi ngeen koy teel a defal genre yooyu noonu doo fa ay détails yu ndaw. Mhm. billaay ñu ñu ñu ñu defaral ma apostille bi ci sensé. Mhm. ma envoyé ko ko moom maire bi bi ma ko ko envoyé mu ne ma dinaa dem ci hôpital bi. Mhm. bi mu demee ci hôpital bi hôpital bi na nañ ko fotool tànku ummi bi. ma foto tànku ummi bi yaa ngi dégg. bi ma foto tànku ummi bi mu ne. parce que nee rajo ana rajo bi fekkoon ne defoon nañ rajo bi bu yàgg fekkoon na ma demoon ci hôpital yi pour wër rajo bi wër wër wër ba gis rajo bi samay samay message mhm. jël rajo bi envoyé ko ko mhm. bi ma ko envoyé rajo bi mu nekk di topp procédure bi bi muy topp procédure bi mhm. mu ne ma a ah, topp naa procédure mais façon opération ñoo am bu neuf mille euros ak bu dix mille euros ak bu onze mille euros. Mm-hmm. neuf mille euros bi à l'âge de seize ans la commencé. Mm-hmm. bu bu bu dix mille euros bi moom kese la du am accompagnateur. Mm-hmm. te loolu xam naa ne ki nekk Italie moo koy gën a soxla. mais bu dee bu onze mille euros bi day am accompagnateur comme nga accompagner sa jabar mu ñëw faju bu fajoo temps bi muy fajoo. yow nga nekk si tool yi di liggéey bu leen neexee bu paree ngeen ñibbisi. Mhm. bu leen neexee buñ paree ngeen di toog liggéey parce que sénégalais foofu noonu di ngeen faa yéen di ngeen a sonn foofu noonu te saa li di dund ci aar bi waroon ngeen a lekk ci a bi xaalis. dëgg la. ma ne ko maman ma ne ma waa ma ne ko li nga wax nii de dëgg la boo ko defee. Mhm. dinaa la gërëm parce que respect laa ko ma a jox bañ na ko ba yaay booy laa koy wooye barki Seydina Mohamed. dëgg la jox ko cër bi mu moom. musuma koo dépassé. Mhm. su ma koy woo sax damay wàcc sama baat parce que respect laa ko jox. Mhm. bi loolu amee mu nekk ci procédures yi procédures yi day diire ay deux semaine trois semaines mais moom carrément danañu di premier jour bu ñu jotee danañ dama leen di jàppale. comprendre nga. maama dañu dañu dama leen di jàppale. Mhm. yéen bi ngeen may wax lam ngeen dajale rek. waaw xam ñu bari ñu ngi naan boos fan la jëlee xaalis. Hmm. man damay xëy liggéey avec ça dama am contrat ak ku ñuy wax BAFSA. Hmm. BAFSA bu fekkee na mu ci laaj bi sax duma bàyyi mu fenn. Hmm. pour sama vidéo yi may dégg di waxaale pour yéen ñuy joué naar bi. waaw contrat bi ñu may fay vidéo soixante dix mille sama ñaari conte yi. dëgg la. xaalis boobu loolu laa doon jël di ko dajale parce que sama kër mag laa dëkk sama mag génn néegam dëkk ci saalam wax naa la ko. wax nga pour lépp ngir bëgg affaire opération bi xaalis bi mat ba mu yóbbu sama soxna mu dem faju ji mhm. bi loolu amee ma dajale ba dajale un million cinq waaw ma ne ko maman maam ne ma waaw ma ne ko man day dajale naa un million cinq cent mhm. ndax un million cinq yi un million yi laa yor liquide cinq cent mille yi fan la nekk muy ci natt buñ ma waroon a teggil mhm. ma jël un million yi teg ci table ji bi ma tegee un million yi ci table ji maman na ma ah un million cinq cent yi la du mat ma ne ko waa maman yow lan nga ñu waxoon mu ne ñu ak projet yi ma nekk moo tax waaye day groupe bi quatre la woon hmm. ndax quatre yooyu noonu ñoo doon lijjanti affaire ñu ne woon ci groupe bi ay ay saa ci la bokk ñoom ñoo doon dajale seen xaalis pour di jox maman muy lijjanti papier yi léegi bi moo waxee loolu noonu na ma lii da mat est-ce leen génn ngeen live Mm-hmm. ay saa du ma bàyyi ma fen laaj bi ñu nangu wóor ñu ko. dañ koo jooytu ba sonn. Mm-hmm. mu ne ma ah date bi de mu ngi jege. Mm-hmm. ñu ne ko maman ñun duñ laaj ndax Sénégalais yi dañ ñoo sonal. mu ne tey ngeen a laaj ndax di bëggal Sénégalais yi ndax Sénégalais lu nekk ci dëgg xam nañ ko te seeni pap seeni papier ngeen jël ñun dégguñu ay italien. dañ ñoo jox rek. seeni papier ngeen yor génn leen ngeen laaj Sénégalais yi jàppale leen. biñ génnee di laaj ñu laaj jour boobu noonu sax. quatre vingt dix mille lañ am. bi ñuy laaj bi ñu wàccee si suuf am ko ma woo benn xale bu jigéen. Mhm. na ma dama laa bëgg a boole ki ñuy wax Abdou Karim Sall mais dafa baax. Mhm. mais bu baax la boo fa demee dis ko sa soxla mën naa am dina la jàppale. waaw du moom moo ñu yóbbu de ñun ñoo fa demal suñu bopp. Mhm. buñ demee mu recevoir ñu doomam dañu doon siiw doomam bu góor. ñun dañoo demoon ci biti di ko xaar doomam bu góor moo ñu dugal ba ci biir. may ñu ndox ñu naan dugal ñu ci saal bi indil ñu lekk ñu lekk. bi ñuy wax ak paa bi expliqué wu sax parce que dana sama doom da leen di suivre. yëkkati un million ah kii nu tudd boos. sénégalais nee nañ. xam nga ci lan lañ bëgg nga ñëw. nee nañ visa bi génn na. nit ñi dañ laa ne nit ñi dañu ne. maam Ndiaye. waa maam Ndiaye. Mhm. xam nga tey bala ngaa dugg ci visa bi. waa faaw nga expliquer procédure bi ni mu commencé. procédure xam nga tey doo ñëw ñëw ñëw rek wax ci visa bi te procédure bi. waxoo ni mu commencé comprendre nga. waaw. ci procédure bi laa indi parce que loolu moo indi visa bu dëkkuloon procédure bi visa du génn. waaw na bi ñu joxee un million yi bu teg ko ci taal ndox lu ñu jox man mosuñu maa jox may denc ak yéen lu ñu jox damay taxaw devant public na jox na ñu lii moment bi dañu envoyé le message dañu jox ay numéro ay Wally Seck naan Wally Seck maa ngi doon dégganteeg ku ko jege. Hmm. nee dina ci def participation hmm. di ñu jox Youssou ñuy diñu jox ñuy bind am na retour yoo xamante ne sax daa waxoon ci moom lay ñëw muy Abdoulaye Daouda Diallo. parce que dañoo dem ba foofu noonu def demande d'aide. Mhm. mu ne ci moom lay ñëw. Mhm. bu ñëwee di ngeen ko jot. Mhm. ak ay xaalis yoo xamante ne nii moom moo ñu ko wax ne dañ koo dajale foofu noonu pour xaalis boobu di ngeen si jot. yaa ngi dégg. waaw loolu bi loolu amee ñun si suñu jëmu bopp bi ñu Sénégalais yi Sénégalais yi dajalee Mame Ndiaye Savon yow. yaa ñu jox cent mille. Mhm. joojo Gorosin ñoo fa déplacé dem ba foofu noonu. ñu mhm. bindal ñu sec cinq cent mille. Mhm. nañu dama leen di suivre mais coono daa bëri woon moo tax ma sama xaalis. ndax xam naa ni yéen ay jàmbaar ngeen. jox ñu cinq cent mille. Sénégalais yi. live bi biñ ci génnee cinq cent mille yi joojo def. ak man ak cent cent mille. ak un million bi ma teg. Mm. cinq cent mille yi desoon bi ma tegee natt bi yooyu laa defee procédure bi mm. boo xoolee live bi liñ ci am bu xaalis bu takku noonu bu gàttee maximum trois cent mille quatre cent mille lañ ci am dëgg la waaw ndax xaalis boobu noon dañ ko cee boole léppoo lépp mu ngi noon trois millions su ma boolee sama un million cinq cent trois millions cent eh, trois millions kii la six cent mille ñu joxe trois millions yi six cent mille yi moom lañ defee procédure yi kayit yeeg papier yi. waaw six cent mille bi. waaw. léegi bi ñu defee loolu ba ba heure déposer visa hôpital bi si boppam mooñu ñu envoyé message. ne ñu suba bu ñu dugalul moitié bi dañuy dindi procédure bi. ndax comme daa waroon a dem avant vingt jours. mais affaire ci ambassade la tardé. waaw bi ñu demee ambassade ambassade si boppam ñoo nañu hôpital bi nee na ngeen fay moitié bi. Mhm. sinon dañuy bàyyi procédure bi ñu woo mu maa gisee. waaw dañ ko wooyee mu ne lu tax hôpital bi di def loolu. Mhm. woowaat waa bi ñu ne ko parce que procédure bi noonu la demee. Mhm. léegi mu maa gisee waxaat ñu ko ko dimbali ñu nga ñaanal ñu ko. waaw ñun dañuy jot suñuy visa ba pare soog a fay moitié bi des. mu maa gisee wax moom. hôpital bi d' accord. Mhm. envoyé ambassade message. Mhm. ci la ñu ambassade waxee dem leen déposé. bi ñu ba pare hôpital bi envoyé ñu message ne procédure bi arrêté nañ ko parce que date bi passé na. waa hôpital bi ñoo leen envoyé message ne procédure bi envoyé kii nañ ko dagg nañ ko. message boobu mu ngi ci man. ñu ne la la après dinaa ko capture email laa koy capturé envoyé la ko. waa hôpital bi lan lañ la hôpital bi si boppam ñoo ñu envoyé message ne ñu procédure bi. Uh-huh. arrêté nañ ko. Ah. xanaa ñu defaat beneen procédure ndax dag bi dafa passé dag bi ummi dañ koy puus ndax date bi dafa passé. Uh-huh. comprendre nga. waaw. ñun bi ñu demee lool après ñu ne ko ah maman lu tax ñoom ñu wax lool mais te ñun déposé nañ visa. Uh-huh. ñu ne ah moom mu ne moom mënu si dara ndax wax naa moom ba sës. ñu ne ko maman tey ngaa jéem wax ak moom mu ne. kon léegi lañ jot def dem leen lijjanti xaalis beneen moitié bi xam naa ñoom bu leen xaalis bi ñëwee rek ñoom dinañ leen faj. Mhm. léegi ñu def di def di def problème di commencé di lii ñun bi ma demee di dem di dem di jëli visa yi. Mhm. ndeysaan bi ma ñëwee sax di avant may dem dem jaar naa ci euh, bureau bi ma di yota saay parce que foofu aw ma sax fa passe interdit. mais mhm. ma fa demee fekk ma ko fa ma expliqué Cheikh. Thierno mm-hmm. ah paa bi de waxoon na bu visa yi génnee nga ñëw mu jàpp ci kon da ngay bàyyi ba visa yi génn. Mm-hmm. bi ma demee ba ci kii bi pour jël visa yi ñu jox ma ñaari visa ñaar. Mm-hmm. benn. biñ ma joxee ñaari kii na benn visa bi lañ leen may. man nit sax ñoo naan un mois mais ñoom dañ na ma ci liñ ma wax ci ñoom dañ na ma visa bi un mois la. un mois. comprendre ko ñoom loolu lañ ma wax. Hmm. waaw après si laa ñëw ñu ne un mois quinze jours laa dégg parce que Aïssa dama ñu capturé lii bi ma envoyé ko ay bonne volonté man ma capturé envoyé ko ko. Hmm. mais gisuma retour. Hmm. comprendre bi ma bi ma bi ma ñëwee di indi kii bi gis am ñu may ko ñun ne ma man xam la lañ ma wax. lii moo tax may ñu la. defar recours. bi ma ñëwee pour def recours ñoom Aïssa ñoom sax ñoo ma ko wax. ñu ne recours bi maanaam hopital bi moom rek moo ko mën a def pour ñu may leen pour ñu joxal leen beneen visa hôpital bi nag carrément. Hmm. ñoom duñ def recours te jotuñu seen moitié. Hmm. comprendre nga. waaw. léegi bi hôpital bi waxee loolu ñuy wax maa gis maa gis na moom mën a sus dara dem leen ngeen lijjanti moitié bi. Hmm. jour bi may woowee Mamadou Yatta Saay. kon dañuy wax ci vingt sept millions. yaa ngi dégg jour loolu dinaa fa ñëw jour bi may woowee Mamadou Yatta Saay. comprendre nga. ci woo moom réeta sax ay deux heures na mm-hmm. ay biib na ba benn journal ma woo na ma xanaa yëgoon ne sa papa ji dafa gaañ ma ne ko kan mu ne ma Momadou Reta Saay ma mm-hmm. yaa ngi dégg. waaw bi ma téléphone bi après moom moom moom moo maa gisee ma ñëw expliqué ko ko. Mm-hmm. ma ne ma génnaat leen kon ngeen live ngeen expliqué senegal yi ndax ay bon volonté jàpp si ñu ne ko maman mu ne waaw ñu ne ko sëf nañ mënuñoo génnaat live keroog am ci ay problème di génnaat bi live. Mhm. suñu ngor mayuñu ko. mu ne kon ah kon Fall Gueye Life leeral Sénégal yi na kat jot ngeen visa waaye amoo leen mois ci da ngeen di obligé toog. waaw si lañ génn leeral Sénégal yi mais jot nañ visa mais amuñu mois ci dañuy obligé toog ba ñu ñu duñu ñaanal naan ñu gëm leen ko rek day ñëw. léegi boos dagguma la boos dagguma la xam nga la laa bëgg a xam. Mhm. xam nga la laa bëgg a xam. comme sénégalais ñoom dañu ne. benn visa lañ leen may moo tax nga ne mi du dem. te yow da nga ne seen da nga ne du benn visa bi. maam Ndiaye. waaw xam wax. Mhm. bala nga kaa wax fi mu fi mu fi mu teera da ngay comme li fi des no yegg foofu bariwul. waaw mais damay continuer li nga xamante ne nii tey fépp fu di dem ku ma tegaloon kaay ma tàpp. dëgg la ne nii la demee. te tey mhm. loolu duma ci amul dara lu ma ci dindi. Mhm. comprendre nga. waaw bi loolu amee. ñu woo mu ne ñu laaj leen ñu ne ko ñu duñu laaj mu ne comme moom ci boppam. mu mhm. ne kon lan mooy solution bi comme que nanguwoo leen a laaj. est-ce que kon doo leen wax hôpital bi delloo leen seen xaalis. dëgg la. pour ba seen xaalis mat bu seen xaalis matee procédure bi mu ngi fi du yàqu. Mhm. ngeen defaat seen procédure parce que ummi mënul faju sans accompagnateur boole ci wax ñu carrément ne ummi bu demee. ambassade dañ koy bloqué moom moo ñu wax loolu ci gémmañam barke Seydina Muhammad ku dee ak sa bàmmeel du man nit moo tax may fenn wala dara ndax man du ma fenn mag wala dara mhm. ndax fii ku fi dee sa bàmmeel yow rek yaa fi biir te lu waaye waxoon duñ ko waxaat li mhm. ñu waxee lool ñu ne ko ah dañuy bale ko visa ay saa jël ma ci suuf dama mhm. visa kenn mënu ko bloqué non boos xam nga lan mooy solution bi ma ne ko lan noonu mu ne da ngay bàyyi umbi muy ñëw Allemagne wala France. Hmm. bu ñëwee comme ça ummi daan rek daw lëmasu tubaab. Hmm. fëlise tubaab yi. Hmm. jooy nag senegal dañ may tokkire dañ may dóor dañuy taf samay vidéo ah di ma wax lu ñaaw man ak samay jëkkër génn li ko li ñu doon tafe li ñu ay aadamoo tafe ak ji ñu ñëpp di tafe jooy pour ñu mën a dimbali sa jëkkër indi ko. loolu la ma Aïssa wax ma ay ko Aïssa ma ne ma ah, waaw ma ne ko sama jabar gëmul ci loolu. bu dee opération moo ko tax a jóg procédure bi moom nañuy ñuy topp. Mhm. te ñun dinañ dinaa liggéey fayet sama life. Mhm. ba am lu ma ko mottalee yóbbu sama jabar mu dem faji ji. Mhm. ay saanam ah, kon loolu nga bëgg ma ne ko loolu laa bëgg. yaa ngi dégg mu ne kaw ngeen gënaan live na da ngeen di delloo xaalis bi. parce que booba xaalis bi moom mu ngi ñëw. mu ne gën leen leeral Sénégalais yi. maa gisee mi ngay wax nii. bi problème bi amee nee na compte vingt du mu ko nëbb nee na vingt cinq millions mu ngi woon ci compte bi ma doon defee moom moo ma doon defal. waaw prix à Sarr te moom mënut a yëkkati trois millions pour soutenir umi pour mu dem faju bi. waaw bu doon umi dafa amoon trois millions si millions bu doon man may ñu ma fii ba santaaram bàyyi sama soxna mu dem faju ji kon man ma soxor bon bàyyi ko mu faju ji ñibbisi waat fekk ma sama wet Mhm. parce que man umi moo ma intéressé mais du alalu àdduna. du soxor. Mhm. parce que loolu bu lool la man kon dem naa bu yàgg bàyyi ko fi. dëgg la mais man chaque à chaque fois maa ngi ci wetam di ko couvrir. Mhm. tey man affaire opération bi man maa ko bëgg mais umi moom mi mu mel ni mën na ko dunde ba dee mais man maa ciy dang-dang i di ci sonn pour mu def opération. comprendre nga. bi ma ay saa waxee loolu noonu. di xaalis bi ñëwee. maman ji si boppam bi problème bi amee noonu ma ne leen est ñuy laaj ma ne leen est ce nangu ngeen ñu ñoo xam nga maa gis la ma jëkk a tontu. benn néeg laa am ak star. te fii tubaab bi dañuy natt pour héberger ummi. amul ñoom ñëpp ku ci wax pour héberger ummi. ah dañoo dañoo ne mën na ñëw mais ñoom mënuñu ko héberger. ñoom dañoo bëggoon humilier fi ñuy téye ñun ñi nga xam ne ñun ñuy jox lekk ak naan comme que fi ñuy téye ki nga xam ne da ngay soog a ñëw. waaw maanaam tuburanke pour ñooñu la pour mu dem lëmasu kenn jooy naan héberger la naan loolu la bëggoon def ko. pour mu dimbali ma pour man ma mën a ñëw. ñu mm-hmm. ko ñun ay saa faju moo ñu yëkkati. procédure bi ñuy ñiy wax ñëpp comprendre lu ñu namu nu mu demee. Mhm. affaire bi du question cadre ummi dafa war a dem faj bi ummi warut. Mhm. datu opération bi passé na. Mhm. après maa gis si la yéegee ci laar di waxaat yeneen naan ummi bu ñëwee dama koy defar xaw ma lan ak lan ak lan ak pour mu faj. moom pourquoi pas ba affaire yi moom mu wax hôpital bi jël en charge garanti ummi bu fekkee ne li mu woote moom mu ngi ci moom. moo tax Sénégal nañ bàyyi buñ tekkee dara rek. dal ci kaw nit man lépp lu ma waaye wax ci àdduna jiital naa la mm-hmm. waaye ñi may taf ñi may taf sama ñi ngay wax vidéo yëppañ ci man mm-hmm. pour ñi nga xamante ne ñoo doon def ay vocal am na ko xam ne daa génn mm-hmm. xaadim bu sol lañ koy wax parce que kooku moom xamala laa sekoon ak moom dëgg la dama koy wax samay may maa ngi moom parce que man su ma amee lu ma lii rek moom moo xam procédure hôpital yooyu noonu parce que da cee jaar. Mhm. dama koy envoyé ne ko grand liiral ma lii est ce que ma maire bi li may def nii dëgg la genre yooyu noonu di wax. Mhm. non maire bi foog lépp a ngi nii. maire bi bu doon man la ba léegi affaire bi sotti na mais maire bi da cee bëgg leneen di ma ko expliqué sànq moom wax na maa bind affaire te xaw ma loolu man man maa maa ko bind. pour mm-hmm. tiital leen mais xam naa yéen a nekk ci dëgg. envoyé ngeen ma ko envoyé ngeen ma ko envoyé ngeen ma ko waaye man damaa nekk nit koo xam ni du ma envoyé comme nit bu ma envoyé dara duma ko jël di ko envoyé waat ummi envoyé na ma ko ba xale bu góor bi dox mais wóoru ndax moom la mais dégg naa muy wax naan baal leen ma àq man maa doon bind naan plainte bi maa ko doon bind dama leen doon tiital ak affaire yooyu léegi démarré. numéro ma ngi lépp lu mu ñu mës a envoyé ci àdduna mu ngi fi xale bu jigéen bi doon toog di yàq suñu der naan maa leen yóbbu ci Abdou Karim Sall ak lépp. Mm-hmm. ñun baalu nañu àq. woo ñu bay jooy naan boole ma baalu du ma ci. nee na nee na dafa tëdd ba xaaju guddi. ñu koy ñoom Adamo ak ñoom Aysa yéen a ko woo nee na. Mm-hmm. di ko ne ko na jóg wax ci affaire bi. Mm-hmm. nee na yéen a ko doon wax li mu wax vocal yeeg yëpp a ngi fii. nee na yéen a ko wax waxal lii ak lii ak lii. mu ne ma dama ko rëcc vocal yaa ngi nii bu ngeen bëggee mën naa kaa teg lépp. ah léegi yow ummi. Ah, ah léegi yow ummi ko dégguma de dégguma. ma teg ko moo gën balaa. teg leen nee na nee ndax nangu nañ ñu teg vocal yi. waa tegal noonu na ma ko jox man ma teg ko nit ñi ci leen koy gën a léegi yow xam nga lan ngay def ummi. ummi xam nga lan ngay ah, def ummi déglu ma ummi déglu ma ummi xam nga man maa ngi nii sama place wala liggéey sama liggéey toog di wax ci seen wax ji wax fa dëgg yàlla lii may def sax mënuma ko damaa waane rek waaye damaa bëgg gis nga nit li ma la wax sànq moom laa lay wax man ñoom mama bokk naa ak ñoom doon waxal xaadim rasul mi mu doon waxal mi ngi nii xaadim moo nekk nii moom moom la ne moo ko yónnee message di ko baalu xaadim moo nekk nii moom laa jël gis naa ko man moom gis naa ko gis naa loolu man gis naa ko léegi envoyé leen Adamo lépp mu teg ko ci live bi waaw euh, Adamo Adamo waaw xaadim waaw Adamo heureusement que envoyé naa la vocal yi envoyé naa waaw tous les mensonges que Boss expliqué vocal mi ngi foofu noonu. waaw parce que man dama koy jàppale. parce que heureusement que man sama téléphone soxlawul may bind may may may may ma koy record bi sama téléphone boom ki ma mën di woo mi message rek lépp koy enregistré. Hmm. enregistré naa envoyé enregistrement ëpp nañ ëpp nañ euh, presque une heure waaw donc du am dara ñu dagg si message yi mu mu may déglu. est-ce que yaa ngi ki muy waxal bu yàlla man moo tax visa bi génna parce que xamul woon xamul xamul lu ñu bindee même remboursement bi su jógee yàlla ak man la parce que maa bind maa de maa demande remboursement bi. dëgg la si en comprendre bu ñu waxee ne su waxee ne su waxee ne amul kenn ku ko proposé su waxee ne bu pour mu ñëw sama kër pour mu ñëw kër ah, ah, mais mais mais mais la waaye léegi man xam nga lan laa bëgg waaye muy ma Adamo xam nga man lan bëgg dama laa bëgg a la wax ji damaa bëgg boos envoyé la lépp bu ko defee yow nga kaa ko. joxul envoyé envoyé naa ko lépp. non ah yow déglu rek déglu du yow dong de. nee na du yow ah. dong nee li mu bëgg a envoyé Adamo dafa bari. léegi may leen ko mu moom fi mu nekk village la. Mm-hmm. seen village la nekk amul connexion loolu moo tax. maam Ndiaye waaw mm-hmm. dama lay leeral lu ndaw. loo mm-hmm. xamante ne ni aussi nekkatuma fi di comme ça. di xam nga lii nii tey. boo gisee tey ma ko doon leeral Sénégalais. la. di naan euh, weddi tuuma du ragal si ta sa der la. dëgg la yaa ngi dégg. Mm. ma jabar xaaruma ci kenn. Mm. Mm. deuxièmement bi may wax mooy xam nga lan la. wax naa ko sax sànq. Mm-hmm. muy lépp képp koo xamante ne nii da ñoo envoyé xaalis bi loolu dama ciy wax pour muy leer. képp ku ñu envoyé sa xaalis. yaa ngi dégg. wooteel nga ne ah yow mii yaa ñu envoyé woon sa xaalis. Mm-hmm. comme que affaire xaalis bi yëpp ay dégg naa ay sept millions di sos yooyu yëpp. te ah te xam ne kat ñoom it joxooñu ko. ñu mm-hmm. faju bi moo am parce que ñun dañoo nekk suñu bopp. Mm-hmm. te incha allah ñoom dina dem di faju ta du kenn ko dul yóbbu kuy jàpp ku dul borom këram léegi deuxièmement mooy képp ku ñu avancé xaalis te yow kat dangaa bëgg ñu delloo la ko boo ñu envoyé réew bi ñu capté sa xaalis jël la ko delloo la ko ci ci anam bu sedd mais dañoo bëgg ngeen may ñu jàmm te képp ku ma taf laa wax de wax ci man lu bon ci kàttanu borom bi. ci naa dem ci yoon lu ma yoon may ma jël. Adamo Adamo li ma bëggoon expliquer benn affaire ndaw la ah, mooy man boos musuma ko ah. woo ma ko téléphone man ma woo téléphone. allo waaw envoyé naa la carte d'écran bi. boos écoute moom Ndiaye après boo paree ma wax. waaw ah, eggale dimbali ma rek xaadi mu eggale sonn naa de. ok waaw. gis nga femme bi ba mu ma woowee. Mhm. vocal yëpp sama connexion bi moo neexul waaye kon ma yónnee leen ko. Mhm. mu ne ma ummi ba mu ne ma na kii la ma ko def Fousa na xam nga Fousa bu ñu la ko Fousa doo ko mën a enregistré mais di nga mën a jël beneen téléphone vidéo ko. waaw. ma vidéo ko mu ne ma maa ngi jéggal mm-hmm. ndax man mbir bi wax naa ci mais man du ma du ma ci dara mm-hmm. ndax sama yaay mi ngi ngay woo di ma xas ñëpp di ma xas ne ma yow ummi ngeen même même situation nga dugg ci laaj bi di ko yàq mm-hmm. loolu waru la comprendre mu ne ma yow damaa ñëw seen kër ngeen teral ma ma toog waxtaan ak yéen kon waruma lii waruma woon mu ne ma ñoom ay saa ñoo ma fekk ma nelaw ak ñoom aanuma ñoo ma fekk may nelaw ñu yee comprendre waaw di yeema ne ma duggal nga wax ci live bi. ne ma lii rek kan lañ fekk muy nelaw kan lañ fekk muy nelaw ñu yee ko. mooy am na femme bi ci duggal te mu ne moom moo ñu jàppale ci ci Abdou affaire Abdou Karim beeg yooyu. walla nu mu tudd. ñaari pompon yi. ñeen tamit def ñaari pompon yi. man moom xawma kan mais musuma yee kenn au contraire man dan may yee damay nelaw rek ñu may yee di ma wax man musuma yee kenn di ko wax ci dara. loolu la wax. gis nga man may yee kenn man dan may yee. man samay vidéo boo ko dégloo salaamaaleykum léegi lan may yee rek ngay dégg mosoo dégg ne aadama yee na nit yeewuma kenn dan may moom li ma wax rek la wax xam ma la xam nga man xaw ma exact affaire bi ma demee moom li ma vocal dong laa teg comprendre nga maam Ndiaye yónnee naa ko lép mm. euh, xale bu góor bi toog ni man maa ne boos ba mu ne ma ma ne ko kii boo xamul nooy waxee moom du la mos a wax li ci nekk ci biir. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. ma ne ko ñëpp noo mën a waxee ak moom rek pour mu muy wax ak yow rek waxee kook moom. Mm-hmm. comprendre nga. maa pour mu cukk ko jéem a dugg wax mel ni comme si moom la faral wala lii. naa ko ku baax nga yóbbu xam nga rek nga xam nga tey jii ku tax ci nag. daal ne yow yaa ko wax lii ak lii ak lii. kooku mën na la yàqal leneen ak leneen. dëgg la. audio bi yónnee naa ko lu mu wax ne ma man ñu ñoo xam ne gëj nañ maa jégg. tey jii dégg nañ ma te ñëpp ñu ngi naan ma yow la yow la bëgguma woon génn ci laaj bi. te boos naa ngi déggalu. Mm. comprendre nga. waaw ba boos naan ko xam naan ko di ko tooñ naan ko yow daanaka xam naa ne yaa bind xa boos xamu ci dara de. Mm-hmm. mais dafa bëggoon rek pour mu xam ne ba xam pour kooku leeral ne man maa bind lii. waaw ndax pour seetal suñu der moo tax ba ba léegi ku ñu woo. laajal ma ummi ndax visa bi da koy bàyyi mu niil noonu wala. ku ñu woon na xam <laughs> Adamo bi ummi nee xaalis bi matul ba muy dem pour faju ji. Maam Ndiaye delloo na ko xaalis bi moom Maam Ndiaye Maam Ndiaye. waaw waaw lii li leen di wax nii yëpp ay histoire à dormir debout la comprendre xam nga bu toogee wax ne su toogee wax di wax ne heureusement que enregistré naa ko su wax ne amul kenn ku ko proposé pour këram nee naa ko ummi vocal bi envoyé naa ko Adamo nee ummi Adama. bu jëlee avion ñëw man na ñëw suma kër directement maa koy jëlee aéroport. Adama. waaw c'est comprendre. Adama pare. bu fekkoon ne enregistré ma a à la rigueur deuxième chose. Xaadim taxawal Xaadim taxawal. ok. alors du Adama yor naa numéro Xaadim. waaw. te xam na profilam. te mhm. ba ñuy ba muy appel filmé ko ak profil beeg yëpp. waaw. enregistré naa ko xanaa loolu mënul weesu tamit preuve tamit maam Ndiaye nañ wax enregistré naa ko envoyé naa ko Adama ba pare léegi léegi xam nga lan laa gis xam nga lan laa gis <laughs> euh, émission bi ñu répété ko pour demee tombe ngeen ñëw jóge jóge village bi waaw xam nga xam nga xam nga xam nga ñàkk ñàkk ñàkk du ko soo ñàkk jàng de xam nga ñu ngi ci mën a ñàkk jàng muus am ñu gëmul. mais mais mais mënoo ñàkk pare ba ñàkk a jàng pare ba wusuloo quoi. dafa jabar la yaa ngi dégg. xam nga bu fekkee xaadim déglu ay waay xaadim déglu ki li muy wax na solo. Mhm. yaa ngi may dégg. waaw. non non fu la neex daggal daggal nga waaye ku la neex daggal. Mm. nga dugal fu la neex. sama mm. soxna ma man laa la wax. ñun ñaar suñu couple yoonu kenn nekku si. dëgg la xaalis képp baabal sa xaalis boo dugal ko ñu delloo la sa léegi yéen boos pare ngeen pour delloo xaasu jaam man moom sama xaas bu ngeen ma ko delloo man moom lu ma xas ba dugal du ma ko delloo. léegi yéen ñun Adamo tamit nee na soxlawu ko léegi nag képp ku bëgg a jël xaalisam boos nee na nga vocal ko envoyé ko wépp mu dugalal la sax xaalis. nee leen nag ak lool tamit maa ko wax. Hmm. képp ku ma ku ku ma taf. maa ngi moom dinañ egg ci yoon. waaw loolu moom yoon boo ko fa yóbboo day am problème cyber la waaye bu dee ñi tukki moom mënaloo leen dara. waaw yéen ñi tukki na képp ku ma ci wax loo xam te ne waroo ma ko wax bàyyi naa la ak suñu borom. waaw kay jeex na ba pare maam Ndiaye. waaw leeral leen ndax sànq daa am ku ma kii nii di ma menacé xam nga. Uh-huh. di ma menacé naan ma di ma wax di ma saaga te nee naa ko dinaa ko yóbbu ci yoon. jarul nga numéro bi loolu jarul sax wax. maam Ndiaye xam nga lan laa bëgg. Uh-huh. ummi bala moo jógee fii ak boos na teg enregistrement yi Sénégal yi déglu audio yi ñu déglu xool loolu dafa am solo. Adamo Adamo boos nee na village seen village la nekk collection bi. non non mais Adamo doo ko teg yow. comme ni ñu waxee. waaw nee na mi ngi koy teg Baye nee na mi ngi koy teg Baye nee na mi bi dama cee doyoo sëkk. eh wuy ma waxuñu ba kii di mel na ko saf day de lii leerul de man bëgguma ojo yu mel nii. ah. bëgguma audio yu mel nii de kii di wax mel na ko saf day kenn déggul li muy wax. waa léegi ah, vidéo bi moo abaa naa ko maam Ndiaye maam na la ko yónnee. ah man waa noo. yee yee waa Sibé dañ maa wax lu leen naan rap rap tëj ñeneen bi ma envoyé kenn. <laughs> non non non mais ñi la jox droit bi yónnee ko rek. loolu du bëri na. fi ndax bëgguma woon affaire rëcc ma ndax su ma génnoon rek. du ma ko mën a fusaa. lii problème bi damay bañ coow yëpp ci ko si man de. bu baax danañ teg yow yónnee ma rek maam. Ah, alma maam Ndiaye. waaw daa lu ñuy wax lu am importance. waaw aussi man man man boss maa jël sama propre décision. Hmm. gis nga jël li ñu expliqué expliqué ku ñu gëm xayrul ku ñu gëmul. loolu yow loo concerné. pour hmm. yaa ngi dégg. waaw Sénégalais nag. Sénégalais ñi ñuy seetaan ñëpp. ñu ngi leen di baalu àq. baalu leen àq waaw. yaa ngi may dégg. Mm. ñu ngi leen di baalu àq ñu ngi leen di baalu àq te tamit nañ ñu baal àq. Mm. yéen ñi ñuy yoreel seen xaalis képp koo xam ne da nga yéene pour parce que procédure moom dee moo ñu koy teree àggale. Mm. mais ummi ci anam bii sama soxna. ah sama soxna ñuy wax ay cybercriminalité di bind seen ay affaire de geste gis nga yoon. ndayu kenn néew ko bàyyi kenn nekk ko amul ñun ñun si doomu dëkk bi fii lañ juddoo yaroo fi. amaana nag dañuy wax dara seen doomu suñu doomu dëkk. ah ñu ñuy wax nit ñi di seetaan ku nekk di tëb di ñu wax lu leen neex baax na parce que Sénégal lañ nekk. mais mm. benn xam nga tamit lu lépp tuuru. Mm-hmm. képp koo xamante ne ni taf taf nga boos. Mm-hmm. di ngeen dem ci yoon nga nga wax yow lan nga xamal boos. loolu tax nga taf ko leneen lu ci def keneen ku ci wax loolu yow la concerné ñun ñu ngi suñu dund. li leen bëggoon a leeral leeral nañ ko ku ñuy gëm aadama yow yaa ngi ñuy dégg. Mm-hmm. pour sénégalais yi la ñuy wax pour ñi nga xamante ne nii ku ñuy gëm. xayrul ku ñu gëm xayrul mais tamit ñun aadamoo muy aadamoo muy maam Ndiaye Savon muy képp ñun mm. ñëpp du ñu ay noonu ñun ñëpp ay doomu Sénégalais lañ. Mm. te man maam Ndiaye. Mm. sama belle nga nit ku baax la. dëgg la vraiment. Mm-hmm. nit ku baax la vraiment. ndax jàpp nga si suñuy affaire. aadamoo yow tamit du ma la balaame na dama lay compte non non compte jamais. parce que ah, li wax la nga informé. Mhm. yaa ngi dégg du amul du ma lu ma lay contrer. Mhm. saaga nga ma. Mhm. jéggal naa la ko ci xol bu seddu guy. ci saaga boo ba mu a saaga. ndax man du la mës a tiim di la saaga. barki alxuraanu karim ndax man yarewuñu ma noonu du ma saaga doomu aadama. jéggal naa la ko yow xaarim rasool yow. jéggal naa la bu baax a baax képp ku ma wax lu bon ci kaw suuf su dee boo dee loolu lay tere tàlli jàppal na tàlli nga. ndax man sama xol amul daraay kelab ki ñaan du damaa ñëw ci kenn na ko damay takk jabar hmm. maa ko xool bu day ma ci ni mu mel ma bëggee ko ci te nag sama digganteeg moom min déef munu ci dara wax hmm. wax bàyyi ndax bëgg na ma bëgg naa ko yërëm na ma yërëm naa ko pour nag fukkar ci ko samay loxo pour yóbbu ko hmm. loolu min déef munu ko ci kaw suuf alal lañ alal moo ñu boole parce que du ma ne mbokk moo ñu boole am na ñoo xam ne alal moo ñu boole te alal moo tax ñuy génn bi ñu yàq di ñu wax yéen ñi Mm. te amaana nag ñun dañoo am suñu soxla rek ñëw wax leen. ndeysaan yaa ngi dégg yaa ngi dégg yaa waa léegi yow boss dégg naa la kontaan naa bu baax a baax dégg nga. yàlla ñu yàlla boole baal ñu koy fekk ñun yéen ñëpp baal jéggal leen. dëgg leen Sénégal yi jéggal leen. Uh-huh. parce que ñun yu ndaw lañ. ndeysaan mm-hmm. man mii di wax ak yow. sama vingt cinq ans sax matagul ay xale lañ. ndeysaan te tamit dañuy juum parfois. Mm-hmm. juum bi ñuy juum bi lenn lu dul. topp TikTok pour lan ngir bëggal bëggal Sénégalais mais du ñàkk suñu xel matul ñu def mhm. erreur mhm. erreur bi ñu def loolu mooy génn bi ñu génn sax du ñaan erreur la ndax tey li ñu ci fekk bëggoon nañu ñu fekk ñu si parce que tey suñuy famille sonn nañ man moom maa ngi taxaw ci audio yi ba tey rek maam boo dee boos pare na wala nga yónnee ma ko mais aada moom bu la neexee continuer sa life képp ku ñuy taf na nekk Europe bu la neexee continuer di ñu tax continuer di wax suñu mais à part deux jours bi ñun boos te amul doo soo dégg ku ku si wax mais ci cadre lenn rek laa leen di jox point boo xamante ne nii pour aadam moom pour ñëpp bi ci àdduna bi mhm. amul benn solo gis nga Mamadou Ibra Faye mi ñu doon jàppale mhm. ana mu tey dem na Mm-hmm. ci àdduna bi képp lu waay def. Mm-hmm. boppam parce que alxuraanu karim. bokkam yi ñu woonoon ma yetta saay ñeneen ñu dugaloon ko famille bi jënd na àdduna mi wéef bi mu dugaloon nee na ñu dellu ko bokkam yema woo naa leen tegal affaire bi affaire bi après. waaw mm-hmm. baax na Adama tey du ñu ay noonu. yaa ngi dégg. tey gentleman gënoo ma kaa def gënu ma la kaa def. tey bu doon dañoo jàkkaarloo nga nekk man ak yow. boobaa ku tooñ sa morom dañuy rayante rek mais loolu lépp jaru ko. man de la wax man Pod parce que Serigne Saliou Mbacke boo pare jëlal sama yaay wax lu ko neex tafal sama mille photo barke alxuraanu ba non non du la tafa du la du la taf tey bi tey lay jeex. jàppal na tey dina dugg àjjana. maam maam boos dañ koo déglu mu wax rek léegi bu ñu ñun dañuy joxe suñu xalaat ndax ci o Europe lañ dëkk te yàgg na Europe te xam na lu lu si comprendre nga may ma ma ñëw rek yow da ngay yëg pour jàppale ko maanaam pour ñu.